xeex te tooñ dañ la yaa tooñ ñu dóor a jubóo ana kaay leen ku nekk def si jéye doo ku tooñ du doxaat jot a demaat ndax ngay fekk koo xam ne dana sàcc alalu jàmbur nga ne ko bàyyi ko li mu sàcc di nga ñëw jubóo barke dem waa ñu yaay ci sëmb amul kenn ku juddoo Ndakaaru wala nga yaroo fi dégg na su mbaju mas a kon nag gis waaw ca kaw kon nag waxoon naa ba ñuy résolution bi ne bopp bi mooy wax ne lan mooy tànk ñaare ba gërëm nguur gi siis moo bi bunte bi troisièmement na am commission de sauvegarde li Abdoulaye Diouf la wax des valeurs lébou. Or, on ne peut pas sauvegarder les valeurs lébou sans garder son organisation traditionnelle qui règle la dévolution successorale des titres. dama ne Serigne Dakar kenn du ko doon ci bàyyi ca maam ak maamaan nga koy doon. kenn du ko doon sa bàyyi sa maam ak sa maamaan nga koy doon. buñ la nekkul sa maam nga ne du nekkoon na sa sa liggéey sa maamaan juboo dama leen da am ñu am fula ñeme boo ko jëlee duur baaraam te boo ko ñëwee tàppit sa baaraam loolu mooy ko dëgg am na loo xam ne lii Aliou ngi nii toog waa Caaroy ngi sama ginnaaw alxames ci suba laa leen recevoir lii ji wax ci doléance dama leen ne Ablaye Diouf Sarr ak Aliou Ndoye seeni mbokk la la ñeme leen leen yaatu leen jëm ci ñoom ñoom la am lii gëm naa ne lii soo leen ko waxee ñu jàpp ci sàmm góor a nii brigade de gendarmerie bi ñu wax bi ñu ko dama leen ne Alioune Ndoye est un procédurier su ñëwee ñu ne ko bâtiment bi ministère de la pêche moo ko moomoon jox nañ ko ministère de l'intérieur pour gendarmerie te amul une traçabilité mais tamit il faut mu am document de base yu transférer le patrimoine de son ministère loolu laa leen wax ma leen deuxièmement Alioune Ndoye mooy ministère de la pêche sur les sept cent quarante kilomètres de côte li muy kenn ëppalewu leen ci kon nag fii ci Wakaam Aliou war ngaa seet ndax Wakaam wala caaree wala Ngor fan ngay def su un showcase maanaam un modèle boo xam ne li nga xam ne waxtaan nañ ko maag yow suñu bëggee dimbali nappkat yi parce que dégg naa ñu may xam naa ne sax borom caméra yi yéen ngi yàq seetaanu ñu ne wante man yéen a yàq sama seetaan gisuma ñëw dama wax ne te dama ciy delluwaat bu ñu weexee ne géej gi amul jën du ma ko nangu ndax géej gi su amuloon jën chinois yi duñ wut si licence ba lakkal Alioune Ndoye dañu yóbbu suñu xel rek est-ce que fii bu amuloon jën chinois yi dañu wut si licence est-ce que su amuloon jën Union européenne dañu wut si jën dañu wut si licence